na bi ngay tontu de Maodo bëgg nañoo xam lu na bi tontu ñu ne xam naa tontu la daf ko boole geste Maodo nag ñu ma woyee di ma firee noonu dafa wax ne waxaala laa xayrul xalqi taqaddirul ahad moo tax mu jiital maful amul saañ bi waaye dama naan waxaala wax na ca tontu la xayrul xalqi ñu dem ci mbir fi ne ko laa laa laa pooj bi amul bàkkaar laa laa pooj bi amul bàkkaar pooj bi neex na amul bàkkaar la la la la yow mu ci kat maa dana ba ma ko wax nit ko si man mu ngi muur boo kontaan na ndey sànn ba ñu ñu rafet bi su muñee rek yem ci lii kenn day niroog tal si soree ba dégg ci sori nag day ni lu rusu ngaram xet de dàq a baañu taat قال علي إلا عيت ويلكم منيري لا إله إلا الله وقال تنت نكم خير خلق الله إن جن جن جن بيكي كبان فاستعالكم المقتصدا بولكم نقول لا لا ويبقى أمر بكى ساكت لو لو فو ماسك سكر da nga déggoon ngeen di jàngi saaka rek saaka rek def naa sàkki la moo doon ramassé laa laa laa laa laa pooj bi amul bàkkaar sàkki pooj bi su poojab tey bii billaahi fawsu texe lay jur ca àjjana waaw rekk nii jëm naa ko ci yàlla ay waay ji ay waay ji ay waay ji déglu leen loolu waay am na at kuy wax naan doom yi garab yi ñu ciy takk dañuy niru nirulu gourmet ak yi kenn xamul ne bi kër bi mu biddee ñetti darab ba jógee aras ñu samp ko ci jàkk ci kàddu gi waaw raal salaasata axlaamin xatib kasabat bu way fi mashir xin fi kax ba tin lu tax ñu tam ko waaw mashir xin wal mashir bir tisabi sama atelier yi sama bureau sama bitik sama tool sama atelier yi sama bureau sama bitik sama tool tuuti si daal naag bi liñ ma ci jox ci mawlud liñ ma ci jox ci bind ko ëpp ndax yaa def def ma xaw a def ko rafet la da nga doon bind xilaasab yi rek di ko jaay di ko jaay di ko jaay xilaasab bi mu mujj jën bind Saïdu Nuuru Taal ko jënd fekk ku ñu wax Amar Lamin Jéen rahmatullahi taala alayhima ñëw ngapparu di seet sama baay ànd ak ku ñu wax Abbas Cubb ñu ma fekk may jàngale jàngale naa fiq ñetti at tasooyu na soldat maa ngi dégg Amar Lamin Jéen di ko wax ku jur xale bi waa ga sëñ Abbas ne ko ma daal def naa ne doomu góor gi la teg son papa tukki ñuy jël si séet bi ñuy wax awa géy jam buñ ko jëlee kuñ wax cuun cuun maître maçon la woon bu nekkoon taalibe ama la nit xam naa nag diggante campement ak ndapparu dañ ko tànk waaye dañu yaakaar ne dañ xu dañ doon warante ci masala parce que naka la ñu ma ubbi leen ne góor gi ñu gis bi ma la teg bi ñëw ndax du suux am na fi ma doon génne ko jox leen ñuy def kër kër kër kër kër kër ba mu yàgg ñu ne ma waaw dil bi amul ma indi jox leen ko ñu fekk ci biir dig biir ba bind bu alaaji Abdou Sose bu jaamee bind dëkk ay junj ci njariñ njariñ ñu ne ma ndax doo ma ko sotti maa ko sotti sama loxo te la ëmar la mu buróom xam ne sama loxo ba ñuy jaay nag xilaas sa bi muur jibel di ko jaay ba si ci zone bi si laaj mali fekk ñu ngi teeru kër ak ku mag ku faatu saa yi dañoo gis ko bi xilaas sa rafet na de ci gën a mën a bind ëmar la mu jëm xool ko ne ko daal suba bañ woon a fenn dem iliman saaku la ceer na waxaale na papa papa góor ga jóg iliman bi jëkk jëkk ñu tafa jóg jëndal ma téere bi mu ne ceer na dama yorelu xaalis de mu ne dama la ñun jëndal ma ko dama la ñun a yore nga xaalis bu fay xale bi moor jigal li mu yor moor jigal na ko ñu ñoo koo jaaye loolu te laa xam ne ne ci lu wér ci sama xam-xam la saa yi di nuuru wëli yu la kañ amul benn wante moor digal xaj ca góor gi di dem am ko ko def ne ko xam nga fi doon waxaale téere yi mu ne yooyu mu ne ko kookoy saa yi di nuuru bi moor digal di nekk fekk amuñ ñu ngi ci gis ma mag oolu ma mu ñu ko aw njaay sàmbari escarpe ñu ne mu nga jàkk jële ñu am ku ku faatu kilifa la woon ma ñëw waa ji dee ma ne ma góor gi di jàpp saa ay doom gi jàpp jox ma gannaaw mu ne ko ma moo doon waxaale téere bi waaye daf ma fay quatre cent cinquante fekk cinq cent franc dañ ko doon joxe naa gàntu ñu daf ma ne moom la moo tax ñu ne ko kaay ñëw ma taxaw nii di xaar seetlu wallahi si dafaa doon jàpp rek ne bul bi ne ma saaxo te koy réew mi si gis billahi ma ne ko yaa doon waxal ci ma ma ne ko jëlal hadiya mu ne mutu fa mutu fa jóg léegi dafa bëgg a xaalis xale bi jël na sa tiyaaba pat mutu fa ñu ngi ak tout à fait ma wax njàkkum lu waa ar rajo bi dëkk di wax toujours Mansour néew bi dina jóge hôpital néew bi di jóge hôpital bu fa jógee di ñibbi dañ ko fay jële ay waa ji teena mu nga hôpital néew bi dina jóge hôpital quatre heures moins cinq néew bi bu jóge hôpital day ñibbi kenn du ko suuli de dañ ko fay jële dinañ ko fay jële la ñuy wax ñii daan nga dee France dina ñëw ginnaaw ëllëg bu ñëw bu ñëwee day ñibbi këram dinañ ko indi bi ñu tëralee mal ba góor gi sëy di ñëw ne nii génnee xaalis bu bés peq peq peq mboq ma ko ñu ko ba di julli allahu akbar allahu akbar maa ngi yàkkal naa sëb nag ba xam ni lan la ñu taxoog man ñëpp xam nañ ne góor gi laa ñu ci bañ xaalis ñu taxoog man ñëpp am déet musuma fana gis nga xaalis bii ñu ma jox billahi ba tawaate gaa ne la dépense te dama ko fayee bor billahi xam nga loolu de dafa am ku ma joxoon xaalis bu bari jox ko sama xarit bu baax muy kilifa bu baax mu sëq sa jox ko ñu ne ma li nga ko joxee fa bari may waxtaan ak sëñ Abdou mu ne yow Ibou Sakk maa yow sunu banque nga àllaaxira dina xaar sunu banque àllaaxira la ma monsieur le ma xool ko mu di téeméer bi ñuy waxoon góor gi muy këyit gi yées pàq ne la koppar gii de doo ko jaay dama koy jënd këyit bind ci nag kilaas baat boo xam ne dama koy bind ak sama sobo jox ko góor gi waaye si ba xaalis bay dem yëguma ko ndey sax jékki jékki rek dem jeex takk takk waaye mooy suma bureau ba ma juddoo ba tey musuma dégg présent wallahi xilaas sax bi fu ma tukki yor ko sa topp dañ daje màkk mu ne fene ko sóobu tey nga ne ko dama demoon di jàngal Sidi Hadj Malick ci kanami xaritam bi xilaa zaab bi mu ne ma nax nga ma abal ma sa bos mayee ko sama bos mu dem jaar gi ci suba sama ñëw ne ko amatiré mu ne maye naa ko maye na ko ci nit ñi ci mën a war suma bureau bi sama atelier sama boutique sama magasin foo gën a laaj mooy fanaan sama fanaan lu mu xat-xat daal moo may fanaan waxuma nag li mu ci dund joxe waxuma kaaf li ma ci jàngale waaye lu góor gi wax a am Mawlana Xaaj Malik man kiraama laa ci kiraama lii man kiraama laa ci kiraama yi Sidi Xaaj Malik yi ci lu wér a wér a wér yàlla
بذاك مالا وعلي مغريا لفقير هاديا يغنى عثمانا كرت وعبد ميعاد كم وعبد أولو كم وعبد أبو لكن يغنى عثمانا سليم الحكم عثمانا وقيد حسرك قيدا وعرفانا ملوكا وأرجع مئات كم وأبقى ملوكا كم وأبقى برات والناس مانا أبا الحبيب خليل القطب عثمانا وإذا حفرك كيدا وعرفانا أقسمت بالدين والدنيا مهامة فالله يجزيك بالإحسان إحسانا ما سعت إما كان خير الخلق لجميل من أفعاله وحلقني أركانا لا يدرك من شيء شيء على مولاه قولا وفعلا يما زمانا أزمت خير إليك رحمة في بين الولاء وبالي بمن أولاك عصيانا ومن يقل في شيء قول الصوت مقاتل بين الأخليك في ذنب نيرانا ذاك الأمنا المغتين غالبنا واليوم المدافع في خير الناس معنا يوم المجازات خيرا يوم المجازات خيرا والناس مانا يوم المجازات خيرا يوم المجازات خيرا والناس مانا أنقذت من شرور داري وأقيهم من الجواب والبلايا والناس مانا أنقذتهم من بلاء داري بدخولها من التي ولقيها والناس مانا ما شرط من أمره دنيا وجيبات من كان كالطالب دين الناس مانا ما شرط مالا وعلما مشريا رحمانا هل السلوك وإن جلت ما ربها كان إلا التلاميذ إلا قلنا عثمانا أم قسطاء من شرور دار بقية أمرني لن يرى ويك لا يرمنا عثمانا أم قسطاء من دواء دار ذنوبها مرني ليلتي ولتي يرمنا عثمانا ناصرت من الله دنيا راجعة إليك ما كطالبهم ديني يمنع عثمانا وصلت مالا وعلما مسريا لفقير الهام يرمي دون يمنع عثمانا إذا صرت مالا وعلما مسريا لفقير الهام يرمي دون يمنع عثمانا لحل السيوف وإن جرت مراتبهم إلا التلاميذ إلا قمنا عثمانا لا يكفينك من شيء خيره أبدا إن كان يمكن لقياك اللهم عبادك وأبق مئات كواهب غالبا لك وأبق كرات يمنازمانا كم منصور الأمة كم طارد يا كم كم تبني كم أخذت سيدانا كم سلك كم أفك كم بازرك كم منكر وكم كم كم وكم ثم كم أفك شيطانا فيمت سنة
ñoom sëriñ Aliou ñoom sëriñ Ibra Fall ñoom Baye Gaaj ñoom ñeneen ak ñeneen ak ñu bëri nga xam ne mu leen tuddee ci ñu France bi bu ngeen leen seetloo nañ simple ci seen bopp ak nañ doxalaloon seen bopp ak fi leen àddina teg léegi da ngeen xam ne liggéeyal bàyyi rek moo am njëriñ moom laay faral di wax toujours am na ñu ma ci mere sax ndax li may déggal taalibe yi ne nañ nañ nañ def correction nañ jubbanti seen bopp topp ñooñu roy ñooñu niru le- niru wante ñooñu di soloo nañ daan soloo di doxee nañ daan doxee di defee nañ daan defee comme ni ko bàyyi daan defee am na ñoo xam ne dañ ma ci mere bu ma waxee ñu ne diwoo tax may wax wala ñee tax may wax du dara dama bëgg ñu topp yoon wi rek ndax bàyyi na na ànd ànd la ku taxaw bokkoo ku fi bàyyi li mu doon def ak li mu doon wax ak li mu doon jàngale ak li mu doon santaane ak li mu doon def ci yàlla topp leneen wala nga niru niru ñeneen itam ñooñu nga topp wala taxaw ka waaye bàyyi moom dem na moom loolu rek laay wax te du ma dañ di ko wax ndax dama koy dund moo tax foog ma wax ko bàyyi da ngay seet dimension ci monde bi wallaay baraam tudd na yàlla wallaay neexuta wax sax itte boo xam ne kenn mës a gis itte bu mel noonu ci jamono ànd ak nag ndimbalal yàlla ndax bàyyi bu daan jóg di tukki bu ne bismillah ba def kalaam gi génn mën naa am sa poosam bi dërëm neew ci baraam xam na ko tukki nañ ba tàyyi bu dogoo rek xam ne ci yàlla lay liggéey dafay jóg rek dem du déng déng du gestu du dellu gannaaw te dana dem def li mu bëgg a def yëpp dellu siwaat ci këram kooku ndimbalal yàlla la woon dogu rek la fu ne ci àddina bi taxaw na fa itte yooyu bàyyi amoon relation yooyu mu sosoon association yi mu bokkoon dégg nga thème yi nga xam ne bokk na ci rapport yi nga xam ne daan na ko def ci conférence yeeg congrès yeeg yeneen ba ci naka la ñuy dundee ci àddina boo xam ne amul bombe atomique con congrès boo xam ne bàyyi dem na ci bind ci rapport mu ngi Ibrahima Mahmoud Diop ak leneen ak leneen ak yeneen ñuy oote jàmm léegi ak ñi bëgg ci àddina nit ñi bennoo moo leen ci njëkk nit ku ñuul ak ku weex ak lakkat bu ne awsat américain lu ne nga boole leen boo demee Medina fekk ñoom ci suuf la ñuy toog nekk benn di tudd yàlla benn baat da nga leen di xàmmee muy tudd yàlla loolu koy mooy bennoo loolu mooy joxante loxo loolu mooy bëggante loolu mooy jàmm kooku li mu doon dox nag ñun bu ñu askanoo ci moom rawatina ñun ñii di jàng di ay gone ak yéen ñii ñoo war a yëkkati suñu itte dañoo war a am xam-xam dañoo war a traduire téere bàyyi yëngatoom yi lépp daf ñoo war a war a ñu génne ko àddina bi janoon moom ci foofu lay ñëwee nag ci seen résolution bi ngeen def ak yi ngeen ci sàkku dégg nañ ko insha allah danañ ci waxtaan maa ustaz ibrahima mahmoud Diop danañ ci waxtaan ak alaaj abdoulaye bu soobee yàlla da ngeen gis ndimbal ci loolu pour ngeen mën a continuer seen liggéey ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm jigéen ñi ak góor ñi ak mag ñi nga xam ne ci ngoon ba léegi ñu ngi toog te yàlla rek moo leen taaj te xam nañ ci yàlla loo xam ne mën nañoo tëj yu seen néeg yi duñ ko génn ndax mënuñ fee wax lu ñu déggutoon mënuñ fi wax lu ñu xamutoon bon duñ def lu may gërëm leen ndax dañoo ñëw rek pour barkeel ñu yokk ñu jotaay bi taar bon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla ñu yàlla tànn boole ñu ci ñam tànn yàlla yàlla nangu liñ fi ñaan lépp ak liñ fi wax yàlla ñu ko yàlla déggloo toppaloo ñu ko yàlla jëriñ ñu ci yàlla faj mboolem suñu aajo képp ku fi ñëw ak aajo yàlla na ko yàlla faj xale yi wut xam-xam yàlla na yàlla may xam-xam ak ay diplôme xam-xam bu barke.
jërëjëf beneen dimension bi mooy le sens large réew mi ci diggante bu gàtt wër na fi wër bu mag ñëpp tas nañ la famille politique tasoon na sànniwante ay xeer taxawante ñaayoo wax wax dem na ba gis ne loolu mënu koo jural dara mu war a retrouver wante war a tase ci benn dimbale wanteeg bokkoog séddoog noo ko mun a tuddee mais retrouvaille am na ak lu ko mun di motiver puisque xam nañ ne tas ak sànniwante ay xeer ak waxante ay kàddu yu ñaaw ak yooyu yëpp du tabax te li ñuy taxawal dara mënu koo defar lu mooy tabax ndax ci jamonoy tabax la ñu nekk bu dimension boobu amee nag ci wàllu politique kon war naa am ci wàllu diini te diine mi ko waroon a jàngale effectivement sëñ Abdou nee na moo war a jëkk kon nag bu ñu mujjee itam waru ñoo toog ba mujjee googu yàgg yaakaar naa ne retrouvaille bi jot na danaay wax ne jur gi su xëyee ci ñu xam àll ba di wëtti benn mbooloo lay def benn saawa lay am benn sàmm lay am aw yoon wi su yeggee ca lef ma sañ naa tasaaroo aw fu nekk sàmm ba dem defi leneen waaye nag su jëfi jotee ni mu xëyee woon rek noonu lay jotee yaakaar naa ne jox jot na réew mi toll na ci war a del ci nag dajalee mboolee mi valeur am pour sotti pour àddina bi jëlee ci moom ndax réew mi li fi mag ñi liggéeyoon du liggéey bu tuuti soo jëlee ñaar yi gën a mag tey ci àddina muy diine ak modernité ñaar yooyu yëpp raw nañ ci Serigne Abdou doo bàyyi ma fenn taxaw nañu Algérie ca bis jaaya ak oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ak mbooloo lu bëri keroog algérien yi liñ doon wax mooy asanaaxi la asatizatuna lañ doon wax ci diin waa Sénégal yi ñoo ñoo ñuy jàngal tey l'islam suñuy suñuy professeur lañ di ñuy wax tey yépp ñu ngi ciy jëlaat ay bind yu bees te loola ci wàllu diine la woon kon ñooñu mu waxoon ne jar nañoo paasal mooy ñooñu mu àndaloon àndoon naa ñoo xam ne ku nekk ci ñoom ay référence lañ keroog ku wax rek gars yi dañ doon laaj arab yi dañoo foogoon ne keroog Sénégal réewu l'islam réewu arab la waaye duul réewu laneen kon l'islam dañ koy joxe fi mu ne ni waaye dootuñ ko jàngi fenn et li ci gën a nag mat preuve sax mooy conférencier bi oustaz Mahmoud Ibrahima Mahmoud Diop amul benn liggéey buy l'islam di def bu am fulla tey ci àddina bi te boolewuñ ko ci wala boog neel liggéey boobu amul fulla moo xam ca Makka la moo xam ca Bagdad la moo xam ca Misra la moo xam ca Maroc la moo xam ci feneen la bépp liggéey bu am solo boole nañ ko ca wala liggéey ba amul solo liggéeyalu l'islam kon nag loola won na ni ni li réew mi ami na lu mag a mag a mag a mag lu mën a joxe ci wàllu itam modernité yaakaar naa ne référence yi fi gën a mag tey ci académie française xam nañ le président Senghor débité réeg essence réeg gouvernance yooyu yëpp moo ko dugal ci ci ci ci ci làmmiñu français mais amu ci woon gouvernance amutoon ci làmmiñu tubaab essence yi amutoon ci làmmiñu tubaab débité yi amutoon ci làmmiñu tubaab mais moo ko ci dugal yooyu yëpp dugg na tey ci biir dictionnaire bi te ab sénégalais la loolu fierté la pour ñun kon ci ñaari sens yëpp ñu ngi ciy joxe loolu war wane ne ne am nañu xaabiliye bu mag pour lañ jëlee woon ca ñeneen ñi te ñoom dañ koo waxoon rek ñun biñ ko jëlee dañ koo rafetal kon nag ki la jox matière première bi yow nga def ko produit fini war nga koo jaay ci prix bu gën a mag waaye nag ñun duñ def ni ñoom duñ def la détérioration de terme de l'échange dañ leen koy jaay ci prix bi gën a yomb kon nag loolu benn rek moo ko mën a def maa ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala
démb na ngeen démb mi ngi ñu fekk diggante Ségou ak Bamako na ngeen démb man maa ngi ci oto diggante Ségou ak Bamako avant de prendre l'avion parce que dañu gunge woon Sandro Abdoulaye Tall surtout Cheikh Omar Fouti fa ñu toog nag ca Ségou ca ron tante ba mu mel ni Abdoulaye dafay wax ak man alors euh, ma fab ko def ay ay bayti ci waxu yaaram projet de kër mu mel ni Abdoulaye nag mooy annoncé son retour ma ngay wax ak Afrique di wax ak nit ñi di wax ak jeunesse bi di wax naan am yaani amintaqat sudani udna amintaqat sudani udna wa fi lxasha uhudun xafidnaha wa wuddun tawattana وحولي أريج ذكري منذ حملته صبيا جسورا ثابت الخطو مؤمنا أيذكر عصر الذل والجهل أعصرا بنا ازدهرت خلوا من الضنك والضنا ولي والد لله كان جهاده الشيخ أحمد وجد من أقطاب الوجود تمكنا هما نشرا دين الإله معززا بعلم وسيف والبعيد كمن دنا ولله قرن كامل قد طويته بعيدا قريبا منك في جنة المنى فهل عودة الأشلاء أم أن مهجة كساها رضا الباري على أرض مدينة لعل عهود اليسر والسعد أقبلت لدى لدن أصبحت سيجو لروحي موطنا سلام على أرض الجهاد ومرحبا بكل فتى جلد طهور من الخنا لأن أمير المؤمنين ونجله أبي يرنوان الدهر في الخلد صوبنا ومن مبلغ عني فدربا وجيشه بأن رجعنا والمحارم قد صنا وأن لنا آه قد صلنا رجعنا فكان العفو منا سجية تعاليم دين صادقين به دنا وإن لنا يوم القيامة موعدا وإنا أوياه لدى المنزل الأسنى ألا يا شباب المسلمين تضامنوا ولا تهنوا يوما وكونوا كما كنا وسيروا وراء الصالحين فإنهم ضمان وتأمين لمن يبتغي أمنا en tout cas ku gëj ci wala comme nag dama comme nag dama ko pare rek ñu fab dugg ci oto yi ma ne maa ngi ñaan yàlla may ma occasion bu ma siiwal ko waaw Cheikh Abdou Khana daf ne li ñuy wax ci laamanji Abdoulaye béy ci buuj bi war nañ ko firi mooy daf mel ni mi ngi naan mi ngi naan e yéen jeunesse su jullit ñi na ngeen am solidarité te bu leen yox yoxi bu leen ñàkk fayda benn bés men leen ni man xam nga moom dañu dugg pale ba ñii gaañu gaañu ñii dem dem moom muy xale bu am douze ans taxaw ne du fi jóg du fi bàyyi yaayam du fi bàyyi nit ñi tubaab bi nag gis ko général capitaine bi ne ne xale bu toll nii jàmbaare mii kenn du ko rey ci lañ ko jëlee rek yóbbu ko waa ak waaw Arsenal ci lañ ko jëlee nag yóbbu ko France ba mu nekk ministère ba gaañoo fa mel ni nag waxam moo naan xale yi bu leen ñàkk fayda def leen ni man te na ngeen dox ci gannaawu saalixiina yi ndax ñooy seen ñooy seen assurance su fekkee bëgg ngeen assurance
kon nag ñu jox itam Cheikh Mamoun Niass moom itam mu am benn contribution bu mu def mu door a tëj wax ci
بسم الله الرحمن الرحيم gannaaw sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu mbokki jullit ñi fi teew ñëpp dalee ci shérif atqana aydara mi nga xam ne sëtu yonent bi la teg ci suma mag sama kilifa cheikh abdul aziz ibnu abubakar ibnu alxaj malik radiallahu taala anhu teg ci pour